waaw man la Cheikh ñu gën maa gën a xam si Cheikh Fall borom Pikine waaw place ñun dañuy jaay jasner jaay palman mbasin riche jasner fii loo fi bëgg léegi boo ñëwee si kàttanu suñu borom di nga ko fekk quoi waaw yëpp waaw hôtesse yooyu yëpp dañ koy yaay ak tis sañ waaw ak tis boo xamante ni dem xew xam nga sañte doole xel la non am na ñoom dañuy jël mbuum saan bëgg koo demee xew te loolu boo demee ndaare ngay jël waaw am na yoo xamante waaw mais boo fi ñëwee rek sax si na suñu borom di nga kontaan quoi parce que noo ñëwee rek ñu génne la foofu nooy. waaw man boo ñëwee ba fii ba garage Kalandooy wala talib mag sa boobu toolee boo ne Cheikh Fall borom Pikine noonu la fii dëgg ne. waaw ku ñëw moom dina kontaan moom ku ñëw loo indi rek dina la sañseel waaw am na tis yoo xam pour dem xew la am yoo pour xew la. waaw yooyu yëpp am na am na genre yi pour pour ay dem xew ak yooyu la comme yi wala vërul boo xamante ni indi la boobu moo génn wala poète bi poète boo xamante bu bees sa caraw caraw la mooy comme genre bii ni lu bees la am na am na ñoo xam tamit 2 mètres leen si bu buñ ko jëndee buñ jëndee 2 mètres wut seen basin waaw parce que moom da am lu garaaw quoi waaw palmaan am na taq am na unique mais bu dee unique bi moo kii moo moo mujjee génn quoi taq bi mooy damier bi quoi loolu lu bees la loolu surprise lañ koy def boo ñëwee ba fii ba toog lan la koy génneel parce que am na yoo xam duñ ko génnee ni instant bi waaw mooy loolu yaa ma gën a xam quoi waaw numéro téléphone bi 77 waaw même boo kiir sax boo duggee si YouTube bi sax xale yu ndaw yi sax numéro Cheikh Fall la ñu doxantoo dëgg neexul parce que man duma ragal waaw kàddu gi ñëpp di di gërëm waa kii waa Guédiawaye info xam nga di leen remercier parce que déplacement bi ñu def nii ñëw taxaw fii lu yàgg lool maa ngi jégalu bu wér damaa jàppoon moo tax waaw di leen remercier bu baax aw ma seen fay yàlla na leen yàlla fay